bokkut dóor parce que dóor day tegtale ne yow baay ji am nga foofu féel parce que boo defoon li nga war def da nga yéex a dóor dara nga xamante ne am na xale yoo xamante ne waaye li ëpp ci xale yi boo def jaaree fa nga war a jaar nekk ku jub ci wàllu jikko jaar leen fa war a jaar ci yar doo gaaw a dóor xale bi mën naa ñëw nga ne ko du ma la jëndal minti gannaaw def nga lii loolu yëpp ci yar la mën ngaa ñëw mu def lu bon nga fasal ko sa kanam fasal ko sa kanam ci yarin la du ma la jëndal minti ci yarin la demal nga toog fële ci yarin la bokk na ci yarin ñu gën a métti nga ne ko toogal fële bokk na ci yooyu yëpp moom laa lay wax ngay toppali toppali ba dóor mooy li mujj du ma la jëndal minti demal nga toog fële wala nga ne su ma la dóoree maanaam traite maanaam nga wax danaa la dóor waaye boobu it bu ko baril parce que xale boo ko yàggee wax su ma la dóoree su ma la dóoree te dóoroo ko moom it boo ko waxee sax daf lay ton naa la su ma la dóoyee ma la dóoree moom itam daf koy wax kon yar du fi caaxaan te yooyu yëpp lu waa waa yi war a xam la kon fii war nga leen di teqale diggante góor ak jigéen ñi parce que góor warta miin jigéen góor goo xamante ne xet ak jigéen kooku baaxul kon war ngeen a teqale ñu xam ne góor sa góor ña jigéen sa jigéen ña loolu moo taxoon suñu maam yi bi ñu daan kii dañ daan góor ñi fii jigéen ñi fii yàlla def jàkka yi di jàngale góor ñi fii jigéen ñi fii waaye tubaab yi ñoo ñu indil di jàngale ci school jël góor fii jigéen fii góor fii jigéen fii góor gi sol sot jigéen sol lu gàtt kooku yëpp yàq jikko rek la moo tax ñu def ko kon seen xàq la pour nga teqale leen seen xàq la bi gën a am solo ci at yi mooy nga jàngal leen alquran yonent bi alayhi salaatu wasalaam biñ ko ko laajee yar def ne xubbi وحب آل بيتي وقراءة القرآن xale yi ci heure bii war nañ leen a addibhum addibhum mooy boo defee lii yëpp ba pare nga fexe ñu xam yonent bi sopp ko sallallahu alayhi wa sallam xale bi nañ fexe ñu xam yonent bi sopp ko parce que yonent bi doo ko mën a sopp doo ko mën a topp ndara nga sopp ko doo ko mën a sopp ndara nga xam ko lu am solo la ñuy dajale xale yi di leen waxal yonent bi fasam waak nangam waak di leen ko wax ñu xam ko bu ko defee ñu mën a xam kan mooy Moustapha alayhi salatu wa salaam yonent bi ne sopp ko ak sopp waa këram ak qiraatul quran amul lu ëpp solo ñett yi ci xale boo xamante ne jugee na si juróom-ñaari at yi waaye nag boo leen bàyyee ah duñ xam kan mooy yonent bi alayhi salatu wa salaam am na beneen xaq fii boo xamante ne xaq la bi la su ma ko waxee dañuy wax ne docteur Diak xamul lan lay wax ni waaye xaqam la ci nga dóor ko waaw parce que xale bi. bu demee ba nga xamante ne yii yëpp def nga ko dafa am benn heure boo xamante ne foog nga jëli yar duma ko bu fekkee ne moom moo ci sës moo tax ñi nga xamante ne ñu nga bugg a génnee yar ci yar ñu ngi bugg a yàq jamono boo bëgg a génnee yar ci yar ñu naan la kenn du dóorati kooku baaxul waaye yar dafa war a nekk li mujj kon xàq xale bi la nga discipline ko maanaam nga yar ko boo xamante ne yar moo ci des pour mu defaru ko parce que boo ko defut ëllëg moom ngay lor xale bu yaruxut yal nañ ci yàlla musal parce que ku yaruxut lu mu am keneen na ko moom da am sa boo gisee famille màgg dem ba sa kanam ñu daanu jëm suuf yara deku la wa innama al umamul axlaaqu ma baqiyat wa innahum dahabat axlaaquhum dahabu famille buy moo xam famille la moo xam xadaara civilisation la moo xam dëkk la boo buggee rek mu jëm kaw du ma sa daanu na nga fexe yar di continuer waaye famille bu mën a doon ak lu mun a am tur bu fa yar jógee ñu ñàkk lañ amoon ca yàlla ñàkk ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ñu leen di war di yar kon yaradeku yi lor la te xale bi amoo xàq pour teg ko lu koy lor kon nag lépp lu ko du lor xàqam la pour nga def ko ko suñ xàq la ñu yar xale yi discipline leen bokk na ci door waaye nag léegi ñu ne buñ leen dóor moo tax fi ne mbir yaa ngi day waar Ibnu doon dafa wax ne xale bi maanaam maanaam yarkat dafa mel ni docteur docteur bu ci nekk dafa am lay ku ci nekk dafa am foo war a jaar moom xale yëpp bokkuñ ñenn ñi dañ leen dóor ñenn ñi doo leen kii am ku ci nekk am foo war a jaar yow dafa mel ni ñu ñuy wan ne waxtu wi ñu war euh, ubbi laay ni jot na bu ko defee ñu ubbi laay ni ñi nga xamante ne am nañ luñ yokk ci wax ji wala ñu am luñ laaj bu ko defee ñu ubbi leen lay ni ñu dem ci loolu. Abu Abu Hamid al Ghazali moom wax na loolu. ibnu xaldun wax na lu mel noonu abu xamid wax na lu mel noonu maanaam yar yombut yar dafa jafe bu ko defee bu fekkee am na juróom-ñaari at juróom-ñaari at yi topp ci lii moom lañ moom nga ci war a def bu yooyu passé mu am fukki at ak ñeent léegi nag yonent bi ne saaxibhu na nga leen foxeeg ñoom juróom-ñaari at nang leen yar juróom-ñaari at seen xàq la sa nang len adibhu saban wa sa'ibhu saban nga nek nga nekk àndandooram gis nga baye juñu ragal xale bu ragal bayam lol baxu baye juñu wek mo gën xale bi nga fexé mu wek la daf lay sop ba pare wek la day am gatché def lo xamanté dang ko yek waye ragal motax durit parce que boo gaawee dóor xale daf koy miinloo Abu Hamid wax na ko maanaa Ibnu Xaldun wax na ko mu ne boo ko gaawee dóor daf koy miinloo dëgër bopp dana ko dana ko ragalloo itam dana taxit muy nekk koo xamante ne day daw responsibility xale bi boo ko gaawee dóor te dóor jotul kooku baaxul waaye danga koy jéem a ñemeloo sa bopp mu am kersa mu wekk la ba nga xamante ne bu defee dara dang koy meuna wax ak mom di waxtan ak mom boy waxtan ak mom ci ngay deg jamono boy waxtan ak mom ci ngay xam ban xéte xale ngay yar kon bu amé fukki at ak ñent mune nang ko nang ko def andor saaxib musahaba parce que fi xale bi mukallaf la lu ci bari bu amé fukki at ak ñent muskàllaf la ci islam motax fi da ngay gis ne ci dëkk yi nga xamante ne ñooy topp ci tubaab yi lu ci bari da ngay gis ñoom ñu yaakaar ne xale bu amul fukki at juróom-ñett xale nga léeg-léeg ñu wax ci ñu def ci loo xamante ne lu doy waar la waaye ci islaam ki nga xamante ne gis na gént te muy góor nekkatul xale mag la bu dee jigéen bu xasee ba gis mbaax nekkatul xale mag la maanaam yàlla mu ngi koy togg mu ngi am bàkkaar di am tiyaabo boo ko yëg boo ko gëmloo xee ne xale la ba léegi amut lu ko war yaa ngi koy sëf bakkaar yu bari yoo xamante ne ëllëg asalaamaaleykum dafa mel am na laaj salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw na ngeen def dama bëggoon a laajte comme like góor goo xam ne da nga am jaboot góor gu góor gu am jaboot waaw nga xam ne léegi jaboot nga ak sa jabar be dara desut pour da jël responsibilities waaw nga ne sa jabar ne dema nga xaar ma sa kër yaay waaw ak jaboot yëpp ñu dem toog foofu noonu mhm. léegi yaa def si diggante bi yaay bi génn àdduna papa bi daw moom kenn gisatu ko mu bàyyi xale si kër bu façon góor yu noonu lan la si islam wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna si góor day euh, dafa am lu ko war bala moo takk jabar mooy mu toppatoo jabaram ak doomam yàlla nag moom alquran nag wax rek la man euh, bu fekkee ne danga nekk nit koo xamante ne da nga ñàkk jom day ta day day day jafe lool pour alquran wax ak yow wala sunna wax ak yow maanaam li waroon def mooy wax lale xew manatuma lii laa man waxtaan dafay indi gindiwante waaye wax rek demal di sa kër baay wala demal ci sa kër yaay kooku tam jaaduwut même bu fekkoon da nga dem ci kër yaayam wala nga dem ci kër baayam moom ba léegi moo leen war a dundal maanaam kon góor googu li ko war a mooy bàyyi na li ko war te yàlla du ko bàyyee noonu loolu mooy tax ëllëg nga gis ci koo xamante ne sa doom duñ la fonk léeg-léeg nga gis ci bàyyi joo xamante ne doom yi duñ la fonk ñuy wax lu ne fekk bàyyi ja moo defutoon la war a def boo gisee waxtaan wi tey ma def ko ci yelleefu xale yi ak kër gi pour wane ne yow bàyyi ji itam da nga am lu la war buñu top xalé ne def leen lay seen baye dafa am baye ji lu ko war bala xalé bi ñëw bu fekke ne jun nga sanni koku mom defo li la war te boko setlo lu ci ëpp ci ñun ñu koy def bu defee jigeen ñu son lool son lool nek ci nek ci marché yi nek ci l'hôpital yi yow nga baye leen xalé xale yi xaqiqatan du lu jaadu xamna ne daal lu ñu warona jëlal lu wala lu ñu a jëlal ab lu wala te serious ci wa nga xamantene fim nek ni dañ le ku ko def dañ la wara mbugal parce que yaa am yaa war yaa am ay doom da leen war a dundal ñaaral ba jigéen ñi itam dañuy noppi lu bari bu fekkee dem nga ba loolu am nga problème da ngay dem ci fa nga koy layee nga wax xaadi wala ne neen lii xew na waaye léeg-léeg yow jigéen ñi loolu dal leen ngeen noppi